rusna mbaarama rasma sagem sa tooj na ngir Bamba dem na adduna

tiitar wey naa puukare wey naa xay xay lay naa feel lu baax lu mu def ci dëkk bi yan na ko yàlla defal jàmm sama xol kii man wax daal sama xol fi mu ne man dafa tooy daal man wax lu bari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 làmb lalam fas yéene nelaw nga làmb sa kanam dajale lu dul koosu bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajale lu dul koosu bàmmeel dootoo lekk lu dul daani malaayika doo naan lu dul daani malaayika li nga defoon lépp lañuy ñuy seet bu ñu lee bindal fi nga jaaroon koro ba nga juddoo ba bi nga duggee fii nga ne aw ma xalima ñu ne la sa baaraam bii mooy sa xalima aw ma daa ñu ne sa gémmiñ gi sa tafsir bi mooy sa xalima nga ne aw ma këyit bu ma bind ñëw sa càngaay bi mooy sa sa sa këyit nga bind keroog bi nga ne bi nga juddoo daanu suuf ne bee nga bind la tàmbalee foofa ba keroog di sa roogi génnee lépp. xam nga man soo gisee ku mel ne ku mel ne Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma neex ma lool lool lool ba ci doomam ji sëriñ Mbacke Soxna Lo sama xarit la woon lool jóge fi maanaam xam nga nit xam boppam am dignité dafa baax ah xam nga Serigne Mbacke Soxna lan la ñu daan faral di wax daan faral di wax ne doomu aadama yii doomu aadama yi. boo àndee ñoom loo rotle mën nañ koo for jox la ko waaye nee na sa jëmmi bopp ji boo sàgganee ba mu rot dañuy jaar ci sa kaw jàll sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bañ ko laajee ne ko sëñ seex lu tax nga tëj seytaane mu ne doyloo sama dara ak sama am-am ñaar yi ku la ci yokkal benn mooy sa buur lu tax nga tëj seytaane doyloo sama dara ak sama am-am ñaar yi ku la ci yokkal benn moo la moom sëñ bi jullita ngoog murita ngoog. am yitte jot naa. ngir bamba dem na fagaru jot na sawarte jot na te yeewu jot na ngir bamba dem na ab day wéy na ab juddu wéy na am jikko wey na ngir dem na aduna rus na mbaaram sagem sotoot na ngir dem na adduna rek naa barke ba naa meññat masaay naa ngir Bamba naa